أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ñoo ngi suratul baqara di jël ñetti aaya insha allah aaya 35 36 37 aaya yi nekk sunu kanam muy ñetti aaya borom bi tabaraka wa taala mu ngi ñu ci jàngal ñeenti mbir bu njëkk mooy kiraamatu aadam wa zurriyati ala rabbihim taala mooy yàlla tabaraka wa taala teddal gi mu teddal aadama ak ay njabootam yëkkati bi mu leen yëkkati ak daraja bi mu leen may moom yàlla tabaraka wa taala ñaareel bi mooy suumul maasiya alkande bakkaar bakkaar ay musibaam wa asaariha bakkaar ak ay jeexitalam lan lay jur yàlla mu ngi ñu koy jàngal ci aaya bi ne bakkaar day fekk fu amoon xéewal mu dindi xéewal yi sànni kon di nga dégg ne tey bëri na kuy jàmbat naan man awma man awma xoolal sa bopp dama doon liggéey ba ci àgg daanu naa xoolal sa bopp damaa xamoon xamatuma xoolal sa bopp damaa wéroon damaa feebar xoolal sa bopp ndax ay bàkkaar bépp xéewal bu mu la fekkee bàkkaar yi day dindi xéewal yi ñetteel mooy adaawatu seytaan lil insaan yàlla mi ngi jàngal ci ñetti aay yi nekk sunu kanam ne seytaane ku noonu doomu aadama la ku koy noonu la ba àdduna jeex kon loolu bu fekkee am na wujubu maarifati zalika litiqaai waswasatihi kon war nañu xam loolu ñu xam ne seytaane sunu noon la ñu pare pour mooy tëddiku loolu dinañ ko jàng ci aaya yi nekk sunu kanam ñeenteel bi mooy wujubu tawba tuub lu war la ak tawbatu min azamb tuub ci ay bakkaar te mooy di wax astaghfirullah ginnaaw ba nga reconnaître ne man tooñ naa sama borom kon li yellu ci yow war mooy nga jéggalu ko nga bàyyi def ay bàkkaar nga koy réccu foo toll kon ñeent yi mbir yi ñu wax moom la ñuy jëlee ci ñetti aaya yi insha allah ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم آية بنجك بي برمي تبارك وتعالى مني وقلنا wax naa man yàlla waxul naa wax naa yaa aadamu eh yow aadam uskun anta dëkkal yow mi aadama wa zawjuka ak sa soxna aljannata aljanna lii nag yàlla nga ko wax ginnaaw bi passé ba ngeen déggee histoire bi amoon diggante aadama ak malaaka yi diggante aadama ak iblis ba yàlla ne malaaka yi sujjóot leen malaaka yépp sujjóot iblis lànk yàlla këcc aadam ne ko kii sa noon la yow aadama yaag sa njaboot kon nan na nga leen moytandiku iblis mii sa njaboot yaag sa njaboot iblis seen noonu la da ngeen ko moytandiku aadama daal di dëkki aljanna comme ni ko ko yàlla waxee borom bi tabaraka wa taala bim ne aadama demal nga dëkk aljanna yow aadama anta yow wa zawjuka ak sa soxna borom xam-xam yi wuute nañ ci aadama ndax bi mu nekkee ci biir aljanna fa la yàlla bindee xawaa soxnaam walla balaa muy dugg aljanna wax nañ ci ñaari wax ku mel ne al imaamul qurtubi moom jële na ci mu'tazila yi ak jahamiya wax joo xam ne wax ju daif la suñ nee wax ju daif mooy wax ju dëgërul mu ne ci biir aljanna la waaye li wér te wóor mooy al imaam muhammad ibnu ishaq te mooy imaamul maghazi wa siyar moom nee na aadama yàllaan ko bindal xawaa avant muy dugg biir aljanna nee na loolu li la koy wan mooy siyaaqul aaya bi ñu jàng léegi siyaaq aaya bi yaxu aaya bi yaxu aaya bi lan la jubla lan la wax wa qul naa wax naa man yàlla yaa aadamu yow aadam uskun demal nga dëkk dëkkal anta yow wa zawjuk kon li muy tekki mooy avant muy dugg aljanna ci la yàlla bind Hawa ndax yàlla ne na ko yow ak sa soxna dem leen ngeen dëkki aljanna waaye dëkk googu as-sakn dëkk googu mooy ban dëkk foo dégg ñu ne doomu aadama dëkk na fa du nekk éternellement foo dégg ñu ne dëkk nga fa dafay am jamono da nga fay jóge moo tax gis ngeen aadama bi mu dëkkee aljanna dafa am ay jour ay fan ay semaine ay weer ay at yàllaa xam yàlla dugal na ko fa yàlla génnewaat ko uskun anta wa qul naa wax naa man yàlla yaa aadamu e yow aadam uskun anta dëkkal yow aadam laa li iqamati daaim déedéet du dëkk bu sax dàkk li anna man sakana daaran laa budda an yarxala minha yawman min al ayaam sikk nekk ci ne képp ku dëkk kër lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg kër googu nga dëkk di nga fa jógee moo tax ndeysaan yenn saa yi nga dégg mu ne ñu ne ana borom kër gi ñu ne deen wala toxu na jaay nañ kër gi keneen ñëw indi ay bulldozer toj ba mokk indi ay caterpillar tibb indi ay ay camion sol ci sànni ji tabaxaat ay fan mu dee keneen ñëw ilaan yaris allah arda wa man alayha noonu rek la ñuy dëkkee foo dëkk tey suba nga toxu mbaa nga dee keneen ñëw dëkk fa dee mbaa toxu rek ba ñun ñëpp ñu dem aadama noonu la dëkkee aljanna yàlla ñëw génne ko fa ndeysaan yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na aadama xam ngeen aadama xam ngeen Moussa Moussa ak aadama ay lan lañ ay yonent lañ Moussa dafa ne tëll yowmal qiyaam rek mu seen aadama rek mu daw ne ko zëccitee ne ko lii yëpp yaa ñu ko teg bi la yàlla teree garab gi boo ko lekkul woon problème bi yëpp duñ ko am yow aadama aadama ne Moussa zëcc ne ko maay sa baay li nga may ŋàññee sa xel a sa gàtt rek boo fàttaliku woon keroog ba yàlla dajale malaaka yi naan leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa kon war ngaa xam ne àjjana taxul woon ma jóg yonent bi saa sallam nee na fa xajja aadamu Moussa aadama daal di daaneel Moussa wax na ko dëgg keroog ba yàlla dajale malaaka yi naa leen inni jaa'ilun fil ard xalifa est ce que aljanna taxoon aadama jóg kon mënu foon dëkk éternellement ndax aljanna taxul woon aadama jóg point de départ la woon pour jóge aljanna ñëw kaw suuf yàlla ne ko uskun dëkkal anta yow mii tawkiid la uskun anta suñ ne góor dëkkal fenn ça veut dire que jabaram tam fa lay dëkk ay doomam fa lay dëkk ndax foo dëkk askinuhunna min haysu sakantum na ngeen dëkkaloo fi ngeen dëkk mais anta gis nga yàlla dafa defal aadama tawkiid dëkkal yow dëkkal doyoon na mu ne ko yow wa zawjuka ak sa soxna fan ngeen di dëkk mu ne ko aljannata aljanna aljanna jooju tamit wuute ñëw na ci borom xam-xam yi wax ci waaye wax naa leen léegi ne al imam muhammad ibnu ishaq moom nee na aljanna ji yàlla di wax parce que borom xam-xam yi dañu ne aljanna jooju ñi ne ci kaw suuf la ñi ne noo ci kaw asamaan la nekk mais du aljanna ji doomu aadama yi di dëkkiwaat ëllëg bu njaamoo yàlla ba dee mais li wér mooy aljanna jooju la nekkul aljanna beneen wala ci kaw suuf comme ni ko témoin Jéhovah di waxee naan aljanna amul kaw suuf mooy aljanna ndax ñoom dañoo gëm wahdatul wujud ñu ne aljanna ji ñu yàlla di wax fii la suñu deewee bu ñu dekkee yàlla du dekkili bandi yeeg saay-saay yàlla du leen dekkil nee na yàlla de yàlla ñoom ñu ne yàlla day jël seen ru def ko ci ru mbaam xuux yi wala xaj yi léegi nag yàlla dekkil nit ñu baax ñi ñoom ñooy dëkkaat kaw suuf suuf rafet ñu defaraat ko moom rafet nee na loolu déedéet al islam moom waxul loolu alquran moom waxul loolu aljanna ji aadama nekkoon mooy aljanna ji ñu yàlla di prépareel bu ñu jaamoo yàlla bu ñu faatoo buñ deewee yàlla dugal ñu foofu aljanna jooju la al imam muhammad ibnu ishaq moom loolu la wax yàlla nee na aadama ak so ak soxnaam wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci biir aljanna la la ñuy lekk bépp xéewal bu leen yàlla defal ci biir aljanna lekk leen wa kulaa lekk leen minha ci bépp xéewal bu nekk ci biir aljanna bu leen yàlla defal ragadan ci yaatuwaay nu mu leen neexee al ayshu alhani mooy dund gu neex alwaasi yuqaalu lahu arragad dund gu yaatu fu la neex demal fu la neex fanaanal fu la neex yandul lu la neex lekkal lu la neex solal lu la neex naanal lu la neex waxal dund googu la yàlla wax aadama ak soxnaam lu leen neex yéen ñaar def leen ci biir aljanna fu leen neex dugg leen lal bu ngeen gis fu leen neex fanaan fu ngeen gis fu leen neex yendu lekk gu ngeen gis bu leen neexee lekk naan bu ngeen gis bu leen neexee naan loolu mooy wakula minha haysu shi'tuma waa liberté dëgg kon du fii de aljanna la liberté lii li ma wax léegi nii foo koy amee munoo ko amee ci àdduna ndax àdduna loo lekk-lekk ñu ne la eh bàyyi fi lii ak lii yàpp mbaam ko tegal yàpp xaj tegal yàpp nangam tegal loo sol sol sol ñu ne la sol gi tegal loo wax wax wax ñu ne la fii nga yem foo dem dem dem ñu ne la taxawal fii amma aljanna nag amul frontière loo neex defal loolu mooy wa kulaa lekk leen minha ci biir aljanna ci xéewal yi fa nekk ragadan nu mu yaatoo nu mu leen neexee hay su situma gis nga nu mu leen neexee lekk leen nu mu leen neexee lu leen neex def leen ci biir aljanna hay su situma comme yéen ñaar nu mu leen neexee waaye ngalawaay leen rek laa leen di ñaan aadama yaak awa mooy wala taqraba bu leen jege haasihi sajara garab gii bu leen ko jege yàlla daf leen ko won de mu ne leen haasihi bii garab bii bii aadama ak awa ñoom xam nañ garab bi yàlla ne leen bii wan leen ko bañ gis ko haasihi assajara garab gii mu wax leen ko bu leen ko jege ndeysaan su ngeen ko jegee fatakuuna di ngeen nekk min azalimin ci way tooñkat yi adama ak awa nekk biir aljanna waxoon nañ leen iblis noonu yàlla bi sunu noon bi lancé woon na xeex histoire adama ci kanam boroomam da ko yow man ak yow dañuy xeex ba dee feek man iblis maa ngi dund yow adama doo am jàmm yàgg sa njaboot dinaa ñëw ndeyjoor dinaa ñëw càmmoñ dinaa ñëw ci kanam dinaa ñëw ci ginnaaw dinaa fexe ba yoon bi yàlla bëgg nga jaar dinaa ci toog yow aadama yaag sa njaboot bu ngeen ci jaar allahu akbar foofu la église commencé def ay pexeem fekk aadama biir aljanna ak soxnaam bi mu ñëwee li mu njëkk a def moom iblis ñëw taxaw di waxtaan ak ñoom ba ci yàgg mu ne damaa ñëw pour di leen conseiller di leen laaya biir quoi ñooñu ne ko pour lan mu ne il paraît yàlla daf leen wax ngeen lekk lépp lu nekk aljanna la ngeen def lépp lu leen neex ñu ne ko waaw waaw ñun koy fii liberté la ñu am lu ñu neex def fu ñu dem bu ñu guddee bu ñu neexee fanaan foofu fu ñu dem lu ñu gis bu ñu xiifee bu ñu neexee lekk fu ñu dem lu ñu gis bu ñu maree bu ñu neexee naan mais mu ne il paraît am na garab bu leen yàlla tere garabu sàngam ñu ne waaw mu ne ko mu ree mais xam ngeen lu tax yàlla tere leen ko ñu ne ko ah mu ne yàlla dafa xam ne bu ngeen ko lekkee di ngeen di nekk ñaari malaaka di naaw di ànd ak malaaka yi de deuxième mooy da ngeen di nekk ay immortel dootu leen dee loolu neex na de nekk malaaka rek neexoon na bi ci gën a garaaw mu ne leen dootu leen dee mooy sajaratul xuld wa mulkin laa laa yablaa waxuma dara sax mu ne da ngeen di nekk ay buur te seen nguur du ràpp benn nee na leen dootu leen dee ñaar nee na leen da ngeen di naaw ànd ak malaaka yi ñett nee na leen da ngeen di nekk ay buur dootu leen dee ndeysaan te lu gën a garaaw ci ñett yi mu leen wax wa qaasama lahuma daf leen giñal ba pare mu ne inni min an nasihin vraiment man soo gisee ma ñëw nii man sa conseil la ma ñëw di la conseil yenn saa yi nga gis benn criminel bëgg daa dugal ci crime bu ñëwee di waat billaahi non soo gisee man ma sonn nii ci problème bi affaire bi ma lay wax nii bon man dama xam ne yow sama kës gaañ nga rek ah loolu gars yi la def fi léegi dugal la booy gaan bi nee naa ko nañ fecc muy jaay lu amul man su su gisee ni demaguma ba léegi ah parce que moom xam na ne sama copain la ah xam na ne mënu ma génn ba ko rek mais kon booy waaye yow dox naa dox bi bu yàgg allahu akbar la ilaha illa allah ndeke musiba la ndeke kooku du xarit kooku seytaan la boo dee na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim muy daw de la sori képp ku lay dugal ci lu bon gis nga waxuma sax ci côté xale yu góor yi nii même ba ci côté xërëm yi sirki yi da ngay gis kenn benn waaye buy bokkaale ji ñëw ne la nan dem gis nga foofu boo demee lekk gi naan gi dañ koy tegale booy ginaar laa lay jox ngay lekk ba nga ñëwaat boisson bi ci ay bërigo lañ koy sotti kañ dem nga sirki ji sirk nit di la woo ci sirk ngay dem bokkaale nañ dem nga bokkaale ji yàlla kaay ma yóbbu la nga bokkaale ji nga langar langar yi ndax bëgg yàpp bëgg yàpp tax ngay bokkaale ji yàlla allahu akbar bu ginaar taxee nga bokkaale yàpp mbaa yàpp yàpp gëléem comme soo lekk yàpp gëléem rek nañ dem foo xam ne yàpp gëléem nga dem bis boo dee ba ndugal a bàmmeel yàpp boobu dina rees dinañ la tànc ba nga wàccu danañ yàlla jubal iblis ñëw na biir aljanna jalti jaltee nax sunu maam aadama sunu baay ak soxnaam hawa ba ñu lekk garab ga te borom bi waxoon na leen bu ngeen lekkee garab gi fatakuuna di ngeen nekk yéen ñaar min azalimin ci way tooñkat yi di ngeen di bokk ci tooñkat yi da ngay dégg lenn saa yi ci ay téere yu ñuy wax wala ay nettali yu ñuy wax ci mbedd yi wala taaxuraankat yi wala gaa yi bëgg xaalis ci gàmm yi naan iblis dafa ñëw dem ci xawaa di ko nax di ko nax ba xawaa lekk daal di wan xawaa daal di dagg benn pom nee nañ garab gi pom la mu daal di koy indil aadama aadama daal di lekk bëgg wan rek ñu daal di koy naj fii mu daal di koy wàcc moo tax góor am lii loolu moom wérul fenn moom loolu wérul ñu ne aar awa awa mi wann loolu moo tax muy indisposé di am doom góor bu wannoon rek day indisposé am doom te ñoo ragal yàlla est-ce que loolu yonent yàlla Muhammad moo ko wax est-ce que loolu yi suñ borom moo nu ko nettali jigéen kay li tax muy indisposé di am doom dañoo war a dem laaju docteur yi lan la amma su ko aadama woon noonu day am doom wala day indisposé loolu moom wax ji wérut ba pare beneen bi mooy ñoom ñaar ñëpp a lekk alxuraan mun ko wax di baa di yàlla utilisé fii mu sànnaa la yàlla nee na fakkulaa lekk nañ ñaar la yàlla mu ne wala taqraba bu leen jege ñaar lañ fatakuuna ñaar lañ ñoom ñaar ñëpp a lekk awa lekkul bàyyi aadama aadama lekkul bàyyi xawaa ñoom ñaar ñëpp a lekk ci garab bi waaye nag bu leen yaakaar ne aadama dafa dëgërul de moo tax mu lekk xam na am na ku toog fii ci ñun naan non gis nga man bu doon man non du ma lekk tere nañ ñu tere nañ ñu lu gën a tuuti loolu bàyyi wuñ bu leen fàtte ne sànq wax naa leen ne aadama ak Moussa werante nañ Moussa ne ko lii yëpp yaa ñu ko yóbbee waaye lan la ko aadama gañee aadama nee na ko bu ma tooñ bu ma tooñ programme bi nekkul woon programme u aljanna mais programme suuf la woon wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ard kon nekkul woon fil janna ard moo taxoon mu jóg programme bi fii la woon kon fii doomu aadama yi fa mu ñëw fi fii la ñu woon beneen bi mooy beneen aaya bu yàlla wax ne minha xalaqnaakum wa fiha nuiidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra suuf laa tibb bind leen bu ngeen dee ma dugal leen ci biir suuf su ma leen di dekkil ma génne leen ci biir suuf kon dund nit moo tax gis nga doomu aadama ci suuf rek la mën a dund demal ci kaw asmaan doo fa dund demal ci biir géej doo fa dund demal fu la neex kaw suuf rek la doomu aadama mën a dund parce que fii la ko yàlla programmé yàlla nee na fa azalahuma shaytaan shaytaane tarxis loona aadama ak awa fa azallahuma tarxiis loon na leen mooy def loon na leen bàkkaar balaa ñu ñëw ci baatu fa azallahuma mooy garab gi ashajara garab gi aadama lekk min asjaaril janna ci garab yi aljanna la bokk wa jaiz an yakuna alkaram nee na garab gi mën naa nekk karam comme ni ko ibnu abbas waxee ndax boroom xam-xam yi wuute nañ juróom benn wax ku nekk indi garab ne garab gii la ku mel ni ibnu abbas ak saad ibnu jubayr ñoom nee nañ garab googu mu ngi tudd kiram am na ku ne garab gi sumbula la ku mel noo ku wax loolu mooy ikrama am na ñu ne garab gi tàndarma la bokk na ci wax loolu sufiyaan sawri am na ñu ne zeytuun la bokk na ci wax loolu mooy munabba waaye bu ngeen demee ci tafsiru ibnu kasir da ngeen di gis ñu daj ji wax yi yëpp lu ko waral mooy yàlla waxul garab gi garabu sàngam la yonent yàlla muhammad waxul garab gi garabu sàngam la kon li wér mooy yàlla dafa xamal aadama garab gi daal di ciy noppi aadama ak awa moom xam nañ garab gi garab gi daal benn garab la ci biir aljanna yàlla xam na ko wax na ko aadama mais nekk fi naan bii ak bii la loolu amul dalil yàllaa ko yonentam daal aadama xam nañ garab mbokk yi aadama lekk na garab gi moo soxnaam hawa yàlla ne leen tarxi seytaane tarxiis loo na leen maanaam seytaane def loo na leen bakkaar yàlla waxoon na leen bu ngeen laalee garab gi fa takuuna di ngeen nekk min azalimin li anfusihima birtikaabi ma naha allahu anha saa yi ngeen lekkee garab gi di ngeen def bakkaar te bakkaar boobu mooy lan mooy ngeen def lu leen yàlla tere léegi nag laal nañ ko waxuma la laal nañ ko waaye dañ cee lekk bañ ci lekkee seeni yére yuñ soloon daa di naaw seeni awra commencé feeñ ndeysaan su ngeen demee ci téere bible bi ñuy tuddee xam ngeen seen bible yi ñeent la am na Matthieu am na Jean am na Paul am na Luc ñeent yi waaye am na ci ñaar yoo xam ne dañ leen boole mu nekk kitaabul muqaddas boobu bu ngeen ci demee di ngeen fa fekk ñu ne aadama ak awa bu ñu lekkee garab gi dañoo nëbbatu yàlla yàlla war ñëw biir aljana di leen seet naan aadama ayna anta li wér mooy aadama ak awa bu ñu lekkee garab gi ndeysaan da ngay dégg alxuraan moom mu ne wa naadaahuma rabbuhuma ndeysaan direct rek seen borom da leen a woo wa naadaahuma woo na leen ñoom ñaar kan rabbuhuma seen borom mu ne leen ñaar waaw ndax terewuma leen woon garab gi ndax uma leen woon seytaane seen noonu moom la borom bi di wax fii fa azallahuma tarxiis noona leen asheytaan seytaane te mooy iblis anha ca aljanna fa axrajahuma mu génne leen mimma kaana fiihi ca fa ñu nekkoon seytaane génne na leen ca fa ñu nekkoon ca biir aljanna mooy aadama ak xawaa fa ñu nekkoon ca biir doon xéewlu aadama nekkoon fi nekkoon ca aljanna ah yéreem bu ñu ko daan fóot du jënd saabu du jënd eau de Javel du jënd gomme xamul yére yi fu mu jógee day sol rek lekk yi xamul du joxe dépasse ah ndeysaan affaire bi ñor muy lekk jënd loon benn matériel tabax pour kër di wut 15 sur 10 tey ku sonn 15 sur 10 moo la sonal wala Adama moom jënd loon benn terrain coono pour jënd terrain coono pour tabax coono takk soxna coono jënd ay meuble coono coono fay courant ndox téléphone ak lan.
internet internet lan transport. yëpp fekkuloon aadama ba moom yàlla ko noon xay su si ituma ragadan lu leen neex lekk leen fu leen neex dem leen lu leen neex sol leen lu leen neex wax leen fu leen neex fanaan leen ndeysaan ba mu des haasihi sajara garab gi rek seytaane ñëw gis loolu ni mu neexee fa azallahuma mu tarxiis loo leen def loo leen bàkkaar tooñ loo leen seen borom seen borom bi nga xam ne daf leen waxoon bu leen ma tooñ bi loolu amee fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fiihi ca fa ñu nekkoon ci biir aljanna wa qul naa ñu daal di wax ihbitu wàcc leen aadama hawa iblis yéen ñett ñëpp génn leen loolu mooy sans droit iblis bi mu tooñee yàlla sans droit lañ ko dàq aadama ak awa bi ñu tooñee yàlla sans droit lañ leen dàq boo demee fenn ngay liggéey nga tooñ ah sans droit lañ lay dàq kenn du la fay mais buñ la tooñee dañ lay fay say droit iblis benn bàkkaar la def mooy usjudu li aadam mu daal di lànk yàlla dàq awa ak aadama benn bàkkaar lañ am bu leen lekk garab gi ñu dem lekk yàlla dàq leen ñun ñu toog fii ku nekk ñaata nga am
léegi différence amul si ñaar yooyu lu tax kii ñu digal ko kii moom mu bañ ñu digal kii dañ ko digal mu bañ di génne serment bi yàlla ñu tere ñu tere ko mu jël mais dawul ñu mais génne serment bi mais mu dañ ko waaw yaa yaa ngi ci biir aaya yi sa laaj bi mu ngi ci biir aaya yi nañ ko bàyyi aaya yi nañ ko tontu ndeysaan aadama benn bàkkaar la am mook xawa yàlla dàq leen iblis benn bàkkaar la am yàlla dàq benn moo tax bàkkaar jar sa xeet boroom xam-xam yi nee nañ boo tooñee yàlla bul xool bul xool li nga def bul xool li nga def ni mu tuutee mais xoolal ki nga tooñ kan la dañ laa wax jógal julli nga bañ a julli pour lan nga bañ a julli ah est ce que nangam ak nangam ak nangam est ce que xam nga ki digle julli kan la dañ laa wax demal jàkk nga bañ lu tax parce que nangam ak nangam ak nangam est ce que xam nga kan nga bañ digalam est ce que xam nga kan la bul xoolati bul xoolati bàkkaar bi nga def waaye xoolal ki nga tooñ bul xeeb li nga def xoolal ki nga tooñ kan joxoon naa leen ci misaal samedi bi passé samedi bi passé joxoon naa leen ci mel ni misaal ci tooñ ku mag nu mu graawee tooñ koo warta tooñ nu mu réyee yow mii tey nga tooñ président de la république ak garde corps président de la république tooñ président de la république du nekk benn wala parce que bañ nañ ko sax ba dañuy tuddee dañ naan kii civil la kii militaire la gis nga kon civil bi am na fu mu yem militaire bi bañ nañ ko moom dafa am tribunalu boppam sax buñ koy yóbbu ndax moom lu tax dafa xam luwaay yow am nga beneen léegi nag xoolal yow nga dem tooñ yàlla ba pare dëkke ko lu ndaw xooloo ki nga tooñ kan la borom bi tabaraka wa taala mu ne wàcce nañ leen ñoom ñett bi leen yàlla di wàcce yàlla nee na leen baadukum li baadin addu lenn ci yéen baadukum lenn li baadin ci leneen ci ñeneen ñi addu wun ay noon la ñuy nekk iblis noonu doomu aadama la doomu aadama noonu iblis la kenn ku nekk da ngay noonu sa morom boo ne iblis ñu ne la anatullah iblis fu mu fekk doomu aadama jëm ko mooy loo yàlla ay noonu la ñuy nekk yàlla ne walakum am ngeen fil ard ci suuf mustaqarrun saxuwaay benn place boo xam ne benn diir boo xam ne makaanul istiqaar wal iqaama benn place boo xam ne di ngeen fi sax tuuti def fi rek ay waxtu ay fan ay weer ay at après ngeen quitté jóge fi ilahiin ba dee ñëw ngeen dee dajeeg yàlla tabaraka wa taala al waxtul muntalaq ilahiin ba benn waxtu ñëw waxtu yu mën naa gàtt mën naa gudd mën nga fi am juróom fukki at kooku xëy na xaw na gudd mën nga fi am ñaari at kooku xam nga gàtt na ndeysaan da ngay dégg ñu ne diw dee na ñu ne ñaata at la moom ñu ne fanweer ñu ne kii kay xale la kii kay guddul fan diw dee na ñaata at ay kii am na téeméer ak ñaar bu ñu ne kooku am na lu ko yàlla may kooku kon gudd na moo tax waxtu ilaahiin ba benn diir diir bi nag mën naa gudd mën naa gàtt sans dépend ci li la yàlla may waaye bu jotee yàgg yàgg da ngay dee doo fi sax dàkk yàlla bindul ku fii sax dàkk ci kaw suuf yàlla bindul ku fii sax du nit du jinne du malaaka du kenn amul kuy sax ci àdduna ñépp ñooy faatu malaaka yi sax dañuy faatu amul ku fi des yàlla rek kullu man alayha faan ku dëkke suuf da ngay dee malaaka yi bi ñu déggee loolu lan lañ wax ii dañoo kontaan daan ne ñun de bokkuñ ci ndax yàlla def ne ku nekk suuf da ngay dee nahnu lasna sukkaanul ard wa innama nahnu sukkaanu sama ñun dëkkuñu suuf asamaan lañ dëkk yàlla mu ne kullu nafsin zaiqatul mawt ku am bakkan da ngay dee malaaka yi daal di gën a jibile daan ne lasna anfusan wa innama nahnu arwaahun muqaddas ñun duñu ay bakkan ñun ay ruu lañ kon ñun bokkuñu ci xam ngeen malaaka yi kañ lañ am yaqiin am kóolute ne ñoom dañuy dee bi yàlla ne kullu shay'in haalikun illa wajha ku dul yàlla da ngay dee malaaka yi xam ne danañ dee ñépp ay dee Sénégal nag am na ñu dul dee daa làqatu daa nëbbatu dafa dummóoyoo allahu akbar day nelaw ak ñu leen ngay dégg non dafay nelaw dafa nelaw dafa wàcc liggéey dafa mani daa dee kenn sonal yàlla mu ne innaka mayit yow muhammad da ngay dee wa innahum la mayituun dee day gàcce dee du gàcce ñépp ay dee dee du gàcce dee victoire la ci ku sànkul dundam da moo tax kenn bu dee ñu ne deewul dafa nëbbatu non dafa wàcc liggéey dafa yéeg ci pays yu sell ya kan moo leen ko wax kan moo leen wax ne dafa yéeg ci pays yu sell kan moo leen ko wax yenn saa nga ne kenn mu ne diwang ci aljanna Sénégal ñoo dëgër fit kan moo leen ko wax te sax kii wax loolu du wax am naa ci yaakaar ñu ngi yaakaar ne li sunu boroom wax diw mii ni mu baaxe woon ni mu doon liggéeyee lislaam am nañ yaakaar ne dina dem aljanna waaye da ngay gis ku ne mani kii bu duggul kenn du dugg bon yooyu ay wax la rek dañuy am yaakaar rek ku baax bu deewee ñun ñëpp dañuy am yaakaar ne amu ngi aljanna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku dee ñu romb gaa yi ne alhamdulilahi rabbil alamin ay way diw mii bu dee ñëpp sant nañ kii ni mu bone woon kii laa ilaha tey de ñëpp dinañ kontaan yonente bi ne mi ngi safara ñu toog diir ñu indiwaat keneen ñu ne laa ilaha ay way kii ni mu baaxi woon ay kii yonente bi ne mi ngi aljana ñu ne waayant loolu nu mu nekk mu ne yéen a ko seede ba yéen a wax kii ku baax la kii ku bon la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu nit deewee uskuru mahasina mawtaakum na ngeen wax lu baax li na ngeen noppi ci yu ñaaw yi na ngeen noppi ci yu ñaaw yi wax leen lu baax li ngeen noppi ci lu ñaaw li léegi nag bu nit dee ñu ne nañ noppi ci lu ñaawam la ilaha illallah nga dégg ñu ne nañ ko defal concert dem naa benn dëj boo xam ne li ma dégg mooy diw ku bëggoon musique la yéen ñëpp samedi na ngeen su na ngeen da ngeen dem soirée dafa bëggoon dafa bëggoon musique samedi bi yéen ñëpp ana xale yi ana samedi yéen ñëpp da ngeen ñëw ñu pay leen ngeen dem soirée ci soirée yéen ñu def nit bu dee nañ ko defal li mu bëgg bu fekkee li mu bëggoon baaxul nag mais nit ñi war na ragal yàlla day gis artiste bu dee ñu koy defal concert koo xam dañ ko war a dañ ko war a ñaanal yàlla et puis lu bon lim doon def kenn waru ko dégluwaat wala di ko tegaat saa yuñ ko tegee mooy nit ki dee na mais ay bàkkaar a ngi koy fekki parce que moom moo ko liggéey ndax isa mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasa yonent bi ne nit bu dee jëfam yëpp arrêté na ba mu des ñett ñett sadaqatun jaariya sarax bu mu sarax woon muy dem léegi nag bu fekkee saraxul woon yu bon la doon def nag aw waladun saalih yad'u la doom ju baax ju koy ñaanal léegi nag bu fekkee doom ji du ko ñaanal soirée lay tëgg na lan mooy fekk baay ji musiba la kon yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne waa réew mi war nañ leen ko mën a leeralal ba ñu xam ne ku dee yu bon yu mu doon def dañ ko war a arrêté lépp lu mu defoon ci lu bon sax dañ ko war a xotti bu dee ay photo bu dee ay cassette dañ ko war a taal ndax dee na te tuubul danañ yàlla def sutura yaqulu jalla wa ala buur bi tabaraka wa taala mu ne fa qul naa wax naa man yàlla ihbitu wàcc leen baadukum lenn ci yéen li baadin ñeel ñeneen ñi aduwun ay noon lañ waaye walakum am ngeen fil ard ci suuf mustaqarrun saxuwaay wa mataaun ak diir bu ngeen di bànneexu ilaa xiin ba dee ñëw sànq mbokk mi wax na laaj na mu ne diggante aadama ak awa ak iblis am na benn différence naam ndax kii dañ koo baal kii baaluñu ko waaye différence bi kee dafa sàkk ñu baal ko kii dafa féetéerlu kee yàlla daf ñu ne aba wastakbara wa kaana min alkafirin bi ko yàlla ne ma manaaka an la tasjuda is amartuka lan la wax ana xayrun minhu kii bi ko yàlla ne aadama du tax nga laal garab bi lu mu wax rabbana zalamna anfusana fa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin aadama dafa tuub iblis dafa ngand ngandalu taxaw ci kanam yàlla di fëgg dënn naan kii duma ko sujootal c'est parce que maa ko gën kii démb la fi ñëw kii dafa fa dara uwe kii waay yow kii ah hee loolu am na fii ci biir dëkk bi de waay kii waay waay kii kii waay kii baax na aadama nag ba mu lekkee garab bi ba yàlla woo moo soxnaam ba ñu xamee ne def nañ bàkkaar li njëkk a def mooy dañoo daw nëbbatu ndeysa yàlla woo leen ne leen ndax terewuma leen woon garab bi ndax waxuma leen woon iblis seen noonu la ñu ne yàlla a kay léegi nag aadama num def mooy aay yi di ñëw yàlla ne fatalaqoo jël na tase na aadamu aadam min rabbihi ci boroomam kalimaatin ay baat yàlla daf ko yenkeewal ay baat ci xelam rek bi mu lekkee garab gi bi ko yàlla woowee ne ko tooñ nga def nga nangam ak nangam luñ la tere woon yàlla da ko sax ay baat yenkeewal ko ko yombalal ko ko defal ko facilité mooy yow sama borom rabbana yow sunu borom zalam naa tooñ nañ anfusana sunu bopp man ak sama soxna ay wa ilam taxfir lana cey boo ñu jéggalul wa tarham naa cey boo ñu yërëmul lanakunanna min azalimin danañ bokk ci tooñkat yi kon tuub na borom bi na fa taaba mu daal di tuub li tax aadama ak awa yàlla baal ko mooy daa tuub iblis li tax yàlla baalu ko mooy dafa nganda nganda lu dafa lànk bañ a tuub ba pare ñuy wax mu naan day jéem a day jéem a dëkk yàlla waaw di jéem a dëgër bopp di ngand ngandul dafa ne am na lu mu xam am na lu mu mën di jéem a fëgg dënnam lan la wax kii duma ko sujootal maa ko gën ndax man danga maa bind ci safara moom nga bind ko ci ban yàlla mu ne ko waroo woon xool loolu ndax man maa la sant man mi la sant man nga waroon xool li ma la wax nga def moom tuubul seen différence mooy awa ak aadama dañoo tuub te donte ne li ñuy tuub tuub yépp yàlla baal na leen bàkkaar bi mais permettre leen moom biir aljanna da leen a wàcc yàlla wàcce aadama ind mu wàcce xawaa jidda ñoom ñaar ñuy wër di xool leen diggante ind ak màkk xool leen diggante ind laa wax ak màkk suñ ne woon rek daa wàcce Adama Mali wàcce Hawa si Sénégal ñoom ñaar ñuy dox ba daja Sandaga kon Adama fan la jóge mbokk yi di dox ba egg si Dakar ba dem Sandaga waaye yàlla ne ne xoolal borom xam-xam bi dañu ne Inde la ko yàlla wàcc Hawa yàlla wàcce ko Jidda ñoom ñaar ñuy dox ba daje place bu tudd Arafat moo tax ñu tuddee ko Arafat foofu la ñu gisantee ñoom ñaar ñu xamante waat ma leen kon aadama lu mu traversé am na boroom xam-xam yu ne aadama bi ko yàlla wàccee ci kaw suuf makasa salaasa mi asana lam yarfa raasahu ila sama toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asmaan nii rek lay def sëg xam ngeen lu tax ndax rus yàlla tabaraka wa taala bàkkaar bi ñu def benn bàkkaar ñun bis bu nekk ñuy jalgati da ngay gis ku def bàkkaar ba pare di ngand ngand lu ñu naan la booy mais li nga def nga an waay man booy ngand la ngand gars yi naan la saaba nga saaba luy saaba est ce que saxaaba noonu la meloon mais gaan bi saaba la laa wax saaba waaw man dama xamul ci baatu saxa saxaaba lañ bëgg a wax wala sa saaba mooy lan bu fekkee saxaaba moom saxaaba yi ñu baax lañu woon ñu daan jaamu yàlla lañu woon daawuñu xëtt seen borom lim leen sant comme ni ko nit ñi di defee nii saa yu ñu tarxiisee dañoo juum te saa yu ñu juumee jéggalu amaa bandi yi nga xam ne duñu julli duñu woor ku leen gis ak seen melokaan xam ne ñii foog ñu jaar safara dafa escale kan moo leen di misaal ak turu saxaaba Adama jooy na lu bare bare bari pour tuub jéggalu ci boromam tabaraka wa taala moo tax bi mu nekkee ci sukuraat moom Adama di faatu dafa woo doom yi ne ma leen utal leen ma fir wi aljanna doom yi dem di wëri fir wi aljanna ñu dajeek malaaka yi malaaka yaa ngi yor ay siwo peel pik huitaine parfum gowe xobi si déem yére bu ñu koy sàngee yére bu ñuy sàngee mbalaan bu ñuy sàngee nit ñu dajeeg doomu aadama yi ñoom ñu xam ne ñii ay doomu aadama lañ mais doomu aadama yi xamuñu ne ñii ay malaaka lañ ñu ne leen ay na abikum ana seen bàyyi ñu ne suñu bàyyi dafa feebar mu ngi kër ga moom moo ñu yónni fu ñeen jëm mais suñu papa ne nañ ko utal fir wi aljana ñu ne dellu leen ñoo la ñu dellu bi leen aadama séenee ñuy ñëw xaw a séen leen ñuy ñëw xaw a xam na li ñi ay malaaka lañ parce que moom ñoom ñoo dëkkoon mu daw songu aadama daal di koy kott nekk ci ginnaawam aadama ne ko xalli bayni wa bayna malaikati rabbi awa sori ma jubal sama digganteeg samay malaaka borom day bañ li ko daloon démb dalaat ko fi moo tax mu ne ko xalli bayni wa bayna malaikati rabbi sama digganteeg sama borom bul fi dox malaaka borom yi bul fi dox génnal mu daal di reculer malaaka yi mu faatu malaaka yi daal di koy sang ñoo ko sang sang ko jullee ko daal di won doomi aadama yi ni ñu koy defaree bi ñu paree ñu daan ne doomi aadama yi lii mooy seen sunna bay aadam ku dee ni lañ koy def suuf ko ci biir suuf borom bi ne aadama alayhi salaatu wasalaam yàlla yenkewal na ko ay baat fa talaqa jël na aadamu aadam min rabbihi ci boromam kalimaatin ay baat baat yooyu mooy ba mu ko waxee yàlla daal di koy jéggal fa taaba alayhi fa taaba alayhi yàlla daal di nangu seen tuub aadama ak awa innahu moom yàlla nii mu baale aadama ak awa huwa moom at tawaab noonu lay nangoo képp ku tuub képp ku tuub rek du aadama kese de du awa kese de su iblis tuuboon keroog sax yàlla baal ko waaye dafa lànk képp ku tuub ba defee bàkkaar boo tuubee yàlla baal la ndax innahu moom yàlla huwa moom at-tawwaab mooy nangu tuub ar-rahim moom mooy yërëme moom mooy jéggale mbokk yi ñetti aaya yi njëriñ yi ñu ciy jëlee ñeent la bi ci njëkk mooy yàlla dafa teral aadama ak njabootam ñaareel bi mooy ay bàkkaar dañ ko war a mooy tëndiku ndax day détruire day dindi xéewal bu bëkk doomu aadama am bàkkaar daf koy dindi lii ma leen wax ni xool leen adduna bi da ngeen di gis defkati bàkkaar yi alal yi ñu am dañuy xëy daanu dootuñu am dara jaay kër yi jaay meuble yi jaay oto yi dootuñu am dara nga dégg ñu naan xool leen diw mu ngi nii fekk démb ñu ngi la doon dégg fu kaw lu war tax loolu mooy ay bàkkaar moo tax nga daanu même gis ngeen état yi nga xam ne ay bàkkaar la ñuy dundee gis ngeen léegi ni ñu daanu mel ci États-Unis amatuñu dara bàkkaar moo baaxul bàkkaar dafay yàq suuf bàkkaar fépp fu mu fekk nu naat dina ko wowal fépp fu mu fekk dund kontante ay bàkkaar dinañ ko yàq amal ay doom rek ngay jaamu yàlla nga bàyyi sa doom yi ñu dëkk ci soirée yi xale yu jigéen ñi di collu bon di njaaloo ji di ñëw xale yu góor yi di njaaloo ji di ñëw da ngay jékki-jékki rek daan paa bi la yàlla di rey gis nga bu ko yàlla reyee kër gi la ñuy jaay ñu tasaaroo xam nga fu ñuy mujj ci reere fonde koo xam ne ay ginaar la doon reere xale jigéen yi xam nga fu ñuy mujj di jaay seen bopp jàng leen histoire lépp ngeen di tëg bët nii nii ay nit ci dëkk bi ay alal lañ amoon tey amatul dara seen njaboot amatul dara lu tax ay bàkkaar bàkkaar baaxul ñetteel mooy adaawatu seytaan lil ins lil insaan seytaane ku noonu doomu aadama la guddi ak bëccëg bëggul doomu aadama topp yàlla moo tax mu lay taaralal li la yàlla tere lépp lu bon mu la ciy jéem a xemmem loo ñeenteel mooy taw tuub dafa war jamono bu nekk jamono bu nekk jullit dafa war di tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit tuubee dellu ci yàlla yàlla day kontaan comme waa ji tukki woon yoroon gëleemam def ci léppam dem ba ci àll bi tëdd di nelaw gëleem gi dem waa ji yeewu gisul gëlëm gi mu ne xaar ma tëdd fi xaar dee ndax mënatul dox dem dëkk ba mënatul dox jëm dëkk bi mu jëmoon mënatul dox dem dellu fi mu jóge woon mu ne xaar ma xaar dee ni mu tëddee mu nelawaat mu yeewu gis gëlëm gi di lekk ci garab gi ko tiim moom waa ji mu kontaan ba kotti gëlëm gi ne ko ne yàlla maa ngi lay sant yow yaay sama jaam maay sa borom dafa kontaan ni mu kontaanee mu mu ne yàlla yaay sama jaam maay sa borom lan la bëggoon wax waa ji dafa kontaan ba mu juum moo tax amul bàkkaar ci li mu wax ndax kontaante gi mu juum noonu waa ji kontaanee ba juum boobu yàlla mooy gën a moo gën a kontaan ci nit ku tuub dellu ci yàlla xale bu góor bu doon baali di kiris karas tubéyam di bënn noppam di létt di entraînement bu gën a nekk mbëgg su tuubee dellu ci yàlla yàlla da koy baal day woo malaaka yi ne xool leen sama jaam diw tuub na dellu ci man taa'ibu min az-zamb kaman laa zamba la ku tuub ay bakkaaram mu dootu amatu benn bakkaar moo tax yàlla mu ne istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran jéggul leen yàlla yàlla mooy baale yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar tuub leen dellu ci yàlla mbokk yi ñun ñëpp mën bokk tuub ànd dellu ci borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla nangul loolu moo doon tax tey bi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh